نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يحسن xam ni ndigal jóge na fa mu daan jóge muy ci Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou jëm si ci mboolem donge tarbiya yu Serigne Saliou waaye mboolem soppe Serigne Saliou muy lan muy liggéeyu xel koom bàcc ak jëri ak roñ ak roñ gerte ga ak roñ ngoon mi yóbbu ko ci yóbbu ci daara ji loolu nag su amee kenn ku ne xam na ni euh, wàccaay wu rëy rëy rëy la laaj liggéey bi day ñaari ñaari xeet lagan dafa am lu ñu fa bay xelkoom am lu ñu fa bay am ñu war a dem lagan am ñu war a dem xelkoom ñu xam ni liggéey bi moom sëñ bi da ko def da ko woote waaye nag yàlla dafa dogal bu ñu ko organisé ñu def ko ñetti pàcc dafa am ñu féete Ndakaaru ñoo war a dem daara Daaru Xudoos ñu féete eh, Njaaréem ak li ko wër war a dem daara Touba Xelkom ñi nga xam ne ñoo féete Touba ak li ko wër nag waa Daaru Salaam la ñu war a dem ñooñeen lañ bëgg a soññi bool seen jëwriñ ñu soññi leen ci ndigalul Serigne Sonia bu Ridwaan Ndooy mi nga xam ne mooy jëwriñ waa Touba te war a dal Daaru Salaam Xelkom Daaru Salaam Janatul Mahwa Serigne Modou Mbacké Daaru Tantil Serigne Jili Seck Touba Belal ah, Serigne Mortala Diop daarul muxti sëriñ xaadim seen daaru rahman sëriñ fall ah, ndindi sëriñ muntaxa njongo daaru xosnul ah, mahab daam dia daarul xuddoos ah, bada sàll daaru salaam sëriñ seex toob daarul minam sëriñ samba diaw amul xuraa muudu kamara daaru alimul xabir sëriñ seex muudu gay tayba sëriñ seexuna buso sëriñ mbay jóob njaarim sëriñ seex fall touba daaray ndoka sëriñ Jili Caam Njàppndal sëriñ ah, Seexuna Njaay ah, Daru Salaam Ñibingal sëriñ Ousmane Diouf section Mbal sëriñ Mouhamadou Ndiaye ah, section Aliya sëriñ Abdoulaye Dieng section Touba Darou Khoudoss Baye Sidi Souare Mahibu sëriñ Nooru Diop ahlu Xasida daayiratu Nooru Daare ni bu Mbàkke sëriñ Mañaaw Jonn Touba Refon sëriñ eh, Ismaila eh, Diop Tamba sëriñ Abdoulahi eh, Nger Golfu soxna Mbeen Diop golfo ñun nag yàlla dogal ñu bokk si ñi nga xamante si nii suñ digal mooy féete daaree lagan ca mbadd li ma ñu ànd si ak jëwrin joo xamante si nii sëriñ moo soran nga xam moo jiite daaree njurul foofa lay dem ñu ngi ko ciy woo sëriñ Thierno Diop mi nga xam te moo jiite daaree lagan yi nga xam fa lañ jëm ñu ngi ko ciy woo ak sëriñ Moustapha Sarr nga xam moo jiite daaree ngay jaan moom itam ñu ngi ko ciy woo ak sëriñ Bada Fall mi nga xam ne si moo jiite Baye Fall yi ak mbooleem seexi Baye Fall yi nga xam mësunoo jaar si loxoy sëriñ Saliou foofu la ñuy ci woo moom itam di si woo tamit sëriñ Lamine bi nga xam ne si ñëpp xam nañ ko moom itam foofa la jëm moom itam di si woo tamit si turu waa Daarul Manaan gépp ak njabootu sëriñ Saliou gi sëriñ Ahmadou Ndiaye mi nga xamante si mi ngi féete ci kër Maba Awa Ndiaye ak kër sëriñ Xoja ca Saalum kër sëriñ Touba gi nekk foofu moom moo ko yor ñi ngi ko ci woo moom itam di woo tam waa tund bi nga xamante si ni ñoo féete ci wetu lagan gi ku ci mel ne waa Ndoka Sidi ñi ngi leen ci woo ak Ndoka Sarr ngi leen ci woo moom itam di ci woo tamit waa Malka ak Kurcel ak mbul kayal ba jàpp jëm ñaaru ñëpp ñu ngi leen woo ci liggéey bi di ci woo tamit sëriñ Fallou Kane mi nga xamante si ni moo féete tëru ak mbooleem koo xamante si ni rek yaa ngi dégg suñ kàddu rawatina waa njeen nañu fàttewul leen ci liggéey bi ñu dëgmal ci xel euh, euh, koom fële ca daara yi daaru salaam ñu ngi ci woo docteur Aliou Silla di ci woo Abdou Mbacke Ndaw maire bu Mbacke Bawal di ci woo Serigne Sadex Mbacke ibnu Serigne daam Hatta Mbacke di ci woo Serigne Ousmane Sambu moom Serigne Alhaaji Mbacke Sambu fii ci xayra di ci woo Serigne Modou gara garaasu Dakar di ci woo Serigne Galas Badiane fii ci gaar wu ndaw waaye di ci woo Serigne Alxaaji Jaraaf géey mi nga xamante ni transporteur la di ci woo nag Serigne Abdou Mbuub bu baax a baax a baax waaye fàtte wuñu Serigne Modou Diop mi nga xamante ne nii moo jiite mbooleem ñi nga xamante ne nii ñooy yore ay benn fii ci diwaanu Touba di regroupement benn yi. woote bi ñi ñu ci tudd seen tur dañu leen tudd rek waaye képp kuy dégg woote bi rek ñi ngi lay woo ngir nga ànd ñu liggéey bi ñu bokk jëriñu. ci turu mbooleem. cheikh yi nga xamante ni dañoo nekkoon ci kër Serigne Saliou ñoo leen di soññ ci liggéey bi bu baax a baax di leen gën a soññit ca wet gee ñu féete muy lagan di ci woo mbooleem euh, cheikh yi nga xamante ni dañoo féete woon kër Cheikh Ibrahima Fall di waa kër seex Ibrahima Fall da ciy jiital sañ Bada Daaru Xafoor ak mbooleem ñi nga xam ne di ñoom la ñoom la daan àndal waaye may soññ itam waa tubaa gi nga xamante ni ñoo féete garage Daaru Musti ak Jannatul Mahwa ñi ma daan àndal sëñ Saliou Ndiaye di woo mbooleem ñi féete Kajoor lu ko tàmbalee ci Pekes Ngéy Ngéy Lamsing Sugeer Tibaar Jokkul Njompi Njooka ak dëkk yooyu yëpp nga xam ne daan nañu ànd ak man euh, di soññ bu baax it waa kër suñu Aliou Kan Mbaleen soññee boobu nag waa Chérif Lo ci lañuy ñuy dugg ak Njaxate Njaasaan Eh, waaye itam noonu la ñu soññee waa Daaru Kan di soññee bu baax mbokk yi nga xamante ne ñoo féete ca Aynumaan Xelkom ak ñi nga xamante ne ñoo féete Njagañaaw ak mboolem ñi nga xam ni daan nañ soññ ànd ak ñoom liggéey bi ci liggéey bi sëñ Saliou bi nga xamante ni wax ni sikkuwul ni mooy liggéey bi sëñ Tuubaa nekkoon. kon daal ñu ngi soññ ñëpp kuy soppee kuy taalibe kuy xarit képp ku am yéene di woo sëñ Galas Kaltoom kenn ku ci ne daal na xam ni ah, sëriñ Saliou moom. Euh, du dongo yi nekkoon ci daara ji ñoo ko moom ndax ñenn ñi dafa àndoon ak ñoom tarbiya leen ñenn ñi ci seen i kaw lan la leen fekk tarbiya leen te kenn gënu ci kenn kon kenn ku ne na jàpp ni daal boppam lay lay lay ñëwal. ngërëm moom tan ànd koog yow ci barkeb Cheikh Salih moo mel na ndigal dafa jógati jóge ci sëriñ Cheikh te mu bëgg noo dimbaleeti rek ci liggéeyub sëriñ Touba bii nga xam ne moom la yor te. jëwriñ ji nga xam ne moo ci sunu bëntu di sëriñ Soxaay bu Ndoy mii liggéey bi nag dafa mel ne sëriñ seex lim ñu ci bëggal moo di booloo waaye du mbooloo booloo googu nag na nanu xam ne képp koo xam ne jëflante nga ak sëriñ Saliou donte senn saa la yaa nga xam ne yaa nga ci biir waaye ña ci jëkk nag mooy ñi nga xam ne dañoo jonjoo woon ak moom tam yaral leen boppam kon liggéey boobu bii nga xam ne jawal si nañ ci muy 21 decembre ñu ngi ciy tàmbalee mooy seex si nga xam ne tey jii kenn ku nekk tomb boo am wala ñu lay summili daala lu mu mën di doon sëriñ bamba tax sëriñ bamba moomee nag sëriñ seeriw rek moo dox suñu digganteeg moom te ku jamonoonteeg moom rek am nga ci lu wér loo xam ne faneen furut foofu mënoo ko fa amee mboolem ñi nga xam ne nag danoo bokk ak ñoom kër gi te tàmbalee ko sëriñ Sidi Sarr mii xalifab Cheikh Ibra Sarr koy woo ci bis bi léegi lañ jóge fa moom di ca woo sëriñ Khalil Sarr ci ndigal limit la ñu mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Serigne Sarr nam ko daan defee Serigne Souhaïbou bu nee noonu rek la ko fas yéenee defee dana ànd ak mbooloo mépp ànd ak nun liggéey ba ba keroog ñu cay noppi insha allahu rabbi di woo maam Cheikh Sarr mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Fallou Sarr Serigne Bassirou Sarr mi xalifab Serigne Mor a Sarr mi caatam Cheikh Ibra Sarr di woo mbooleem seex si nga xam ne bokk nañ ci liggéey bi te bokk koog noonu te dañu ci soññu nag nga xam ne noonu seenu surga rek la ñu ci di woo Gosaas yéen nag am ngeen ndax xel lagan dafa bokk ci liggéey bi kon yéen jëm si leen lagan buñ noppee yéen ñi nga xam ne yéenay jëwri ni liggéey ba yit danañ leen booleeg ñooñee ngeen fekk si leen foofee jërul ngeen ñuy fekk si ndax lépp lenn la lépp fenn la ah di ca woo itam ñi nga xam ne naka jëkk dañ daan baab bu ko foofu ñëw itam dañuy soxla fourchette dañuy soxlay saako ku am ay saako ak loo ca man a am andil nañ ñu tinit yéeyum gerte me nañ ñu tin ci yéeyum gerte me a barab boo fay dem te dafa sàkku dangay am ci loo xam ne da nga koy moytu donte sëñ bi mën nañu koo baal nan ko moytu noonu ndax sëriñ Saliou mi ñu àndal daan ko liggéeyal képp sëñ bi xolli ci yooyu sax da ko daan tuub te yaakaar naa ne moo nu gën a bëgg lu baax moo nu ko gën a xam moo nu ko gën a jege kon nag woote baa ngoog noo ngoog incha allahu rabbi nañ fa fanee nag jàmm ca 21 décembre ba liggéey bi nañ ko sellal te bañ koo yàkkamti am nañ fa ñetti fan ak am nañ fa ñaari fan ak am nañ fa fukki fan bu mu nu yitteel sell gi nañu ñi nga xamante ne dañuy ñëwee seen xër te xamuñu liggéey bi nañ xool ñi nga xamante ne xam nañ ko ñu topp ci seen ginnaaw te bañ a yàkkamti ci njiital sëriñ soy bu ak mbokk yi fi teew yëpp ak ñi fi teew itam woote bi daanaka benn woote nee na woote bi moom benn woote rek la. wax ji jenn wax la. ji jenn wax la. waaye nag daal noo doole na ñu ngi doole sant yàlla bu baax ak Serigne Saliou. xam ne boole moom mi nga xam ne moo ñu boole ci liggéey bii. ndax fekk liggéey bi gën a kawe. mu boole la ca. ndimbal la. nee na li may jiite. day rëbb soxna Fat Jaxate la jiite. day jàllbati maraaxib. ay soxna. ak i góor. ñoo am pasteef. nee na moom la jiite. ànd ak sëñ Nooru Jóob. ànd ak sëñ Saaliw Nger. ànd ak sëñ Saaliw Nger. ak sëriñ Mbay Bajaan. ca Lambaay. dëkk bi yëpp ak mboolem dëkk bi yëpp rek ak andi jàmmam ak si ak xaritam ak ki bokki taalibeem nee na mi ngi woo ñëpp bàyyiwut kenn fas yéene dem ci topp ndigal topp seen ginnaaw lu ngeen wax moom la wax lu ngeen def mu def ko nee na ci du fi jug mukk nee na ci amuñu ngërëm ci barab bii nga xam ne moo di kër Serigne Saliou ginnaaw bu ñu santee sunu borom nag julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant Serigne Touba tey ñaanal bu baax Cheikh Saliou Mbacke di ko sant di ñaan itam Serigne Cheikh Mbacke sunu borom yàggal ko fi lool sàmm ko may ko ak wér ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu ànd ak ay rakkam def ko ni ñu ko yéenee liggéeyub Serigne Touba la boo xam ne mu ngi ko donde ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dond loo ko sëriñ Saliou muy ak tarbiya di ak defar di ak yéwénal muy dox ba egg si loxoy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou. mu tànn dongo yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Saliou ci liggéeyu Serigne Touba santaat leen waxtu wu liggéey bi tollee fii ñu dem eggale ko ko ci tool ya muy am mbàddale ren ji nag jàpp nañ ko ajjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bii loolee moo ñu dajale fii ñu di ci woo jullit yëpp di ci woo taalibe yëpp di ci woo murit yëpp nga xam ne mbooloo mii teew mooy mbooloo mi nga xam ne bu ñu jógee ñi ngi war a dem daaru salaam ca xelkom ak lagan muy ñaari daar yi nga xam ne nun ñu féete Touba moom la ñu sant ni ko kilifa yi waxee nag mbooloo yooyu rek ñoo fa jëm leneen li ñu ciy dolli ci ak leeral rek mooy wane ne fii la départ bi di buntu kër sëñ Saliou képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi wala li wër dëkk bi te bëgg a dem bu àjjuma mën ngaa ñëw ci buntu kër Serigne Saliou gi jàkkaarloog jumaa ji mooy départ bi wala nga woote ci numéro Serigne Samba Diaw 77 450 22 82 boo ko defee Tigo mën nga koo jot boo ko defee Orange mën nga koo jot. bu yàlla dogalee itam ñu dem ca tool yi ak jàmm nañ xam ne sëriñ Siri Souare mooy jëwriñu tool yi fa ñu war a xëyeeg fa ñu war a wàcceeg la war a def lépp moom lañ cay déglu fu ñu jaarloo ñun ñëpp ñu maase fa jaar ndax loolu mooy nasub liggéey bi mooy yéwénal liggéey bi. ni ko sëriñ Chouaïbou Bichara waxee itam dem liggéey li yàlla rek moo ñu yóbbu kon bu xasee ba egg te xam ne fan yi gën a néew suñu àdduna lañ fay am soxlaatul ñuy yàkkamti la mel ni ko sëriñ bi bëgge mel ni itam kenn ku ne boo bayaan sab tool na nga koy toppatoo seetal ko ba doo fa bàyyi genn goñ wala genn benn doomu gerte nañ xam ne toolu sëñ Tuubaa yiñ yiñ jëm moo gën a yey ci loolu itam sëriñ bi soxlawul liggéey bu gaaw ndax liggéey bu baax rek la soxla te fay gañ ciy séntu itam ci liggéey bu baax ba la nekk kon loolu itam ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baaxam te képp kuy dem itam nga xam ne jumtuwaay yay gaawal liggéey bi nga bañ koo fàtte lu mel ne radu lu mel ne fourchette lu mel ne ay saako yu ñuy roñe gerte lu mel ne parla ñi nga xam ne itam tudd nañ leen fi te soxla ci ñoom ay oto wala gaasuwaal ñoom itam ñi ngi feddali loolu te loolu ñi ngi ciy jiital Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Dame ate di ko ci woo baax ndax xam nañ ni mel ci kër gi ak ni mu jàmbaaree ci liggéeyal Serigne Touba bu ko defee itam li ñuy jeexale mooy di wax ne ren jii de Serigne Cheikh moom ci boppam dafa am yéene yi bu liggéey bi eggee mu ñëwal boppam yeewe mbooloo mi am na yéene ji lool mi ngi koy ñaan tey ñu ñaanal ko ko suñu borom woyofal yaram yi dolli ko kàttan ba mu mën a ñëw jonjoog ñin ñi ndax dafa wax ne saa bu ñu yabalee xel koom ñu dem fu ngeen ko mën a dégg na ma nga fa jëmm ma fa nekk waaye xolam mi ngi ci biir mbooloo mi ndax la yéene di liggéey rek moom la yéene kon nag bu sañoon bu dara disut lu dul taxaw ak mbooloo mi yeewi leen bu sañoon ngeen ñaanal ko mu man ko nee na nag man googoo la koy gën a yombal mooy dalug mbooloo mi ak seenu tekkaaral ba mu mën a ñëw dugg ci seen biir wax li mu a wax delluwaat ndax mbooloo moo xam ne ay junni junni lañ bu kenn ku ne bëggee rëg-rëgi bëgg koo xool wala nga bëgg koo laal loolee nee ne loolu munta ànd ak mu mën a ñëw di yeewee te loolu rek la bëgg kon nag li mu bëgg mooy bu ñu yàlla dogalee liggéey bi xëy egg bis bu mu mën a doon ca bëccëg ba sëriñ bi dina ñëw yeewee su fekkente ne nag dafa guddi yeeweeb guddi moom xàmmee su ko bu boobaa bis bu mu mën a doon dañuy fanaan bu ñu xëyee mu fekk suñu daaru sakkoor daaru sakkoor googu la ñuy defee yeewee bi bu boobaa nag la ca gën mooy mbooloo yëpp maase mel na ner mel nag basang sëriñ bi mën a ñëw toog sunu kanam ba li nga xam ne moom lañu ñu yéene ci xool ko mu xool ñu mu ñaanal ñu delluwaat ci tey adduna yi ñu mën ko kon ñu ngi ciy soññi ñëpp di ñaan yàlla suñu borom eggale ñu ci te jàppandal ñu lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.